aca jërë ngeen jëf euh, yéen sunu mbokk internet bu 221 people ñoo ngi leen di nu di leen di jaajëfal bu baax di ci delloowaat rek ku ci nekk sa wàccuwaay amaat naa lii di kontaan ak mbégte bu baax nag comme ni ma ko faral def saa su nekk fas yéen dalal kilifa ñu waxtaan ci xam-xam yaatal ci bu baax a baax kooku mooy sëriñ Ahmed Jim Thiam dinañ yaatal ci xam-xam mu di diggante paj ñaan bi nga xam ne suñu borom am na loo xam ne dénk na ko ko ba ñu bëri rafetlu ko dinañ waxtaan ci xew-xew jamono mu di actualité ndax ku ji langue politique bi ni muy doxee euh, yéem na ko nee na am na lum ci bëgg a révéler ku déglu nag nee naa la tey rek di nga dégg euh, kilifa gi laata may def dara bàyyi nga ne ak mbokk askan wi bisimilah. Euh, alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu sayidina wa nabina muhammad sallallahu alayhi ñu ngi sant yàlla di julli ci bi sallallahu alayhi wa sallam dinay soppi yi xarit yi dinay képp koo xam ne yaa ñuy seetaan ak foo mën nekk ci àdduna bi ñu nuyu waa 221 people di ndokkeel bu baax ci bés bi ngeen ñëw ngir ñu ànd ak yéen. laante biir ak jaamu yàlla yi incha allahu rabbi yal na yàlla def jàmm ci réew mi def ko ci bitim réew wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. jërëjëf jërëjëf sëriñ Ahmed Jim Thiam ñu ngi lay fay bu baax di lay kontaane ginnaaw seen yooyu set yooyu te ànd ak daal ñu ci kontaan bu baax fas yéene waxtaan ci xam-xam lu toll ci juróom-benni ponk waaye juróom-benni ponk yooyu ñaari xaaj laa koy def ci ñaan bi nga xam ne suñu borom am na lum la ci dénk waaye paj bi nga xam ne kenn werante ko yaa ngi ciy def résultat yu maj ayib ci actualité ku déglu di nga dégg nee na ma ñi bokk ak ñi dut bokk tey ma wax la ko ba mu leer waaye kii doon président incha allah 2024 dinaa ko révéler gars yi nag fu nekk ñu ngi fay wax euh, président Ousmane Sonko ndax dina dugg ci prison bi jëg cité kër góor gi wala du fa dugg foppa lay des ba feek mu fay jóge loolu loo xam ne dinañ ko leeral ku ji langue politique beeg réew mi ni mooy doxee ku déglu rek di nga dégg révélation am solo acca maa bëgg ñu tàmbalee ci seet bu yéeme bi nga xam ne yaa ngi koy def ci laa bëgg ñu tàmbalee ñu ngi kontaan bu baax ci question bi nga xam ne laaj nga ñu ko mu nekk mbir moo xamante ni mu xam importance si dundu doomu aadama xam nga wàllu seet léegi nit ñi dañ cee wax a wax a wax ba yaakaar naa sax ñuy seetaan ñoo gën a xam sax ñiy wax lan mooy seet comme man jàpp naa ne ñu ñuy seetaan ñoom xam nañ lañ mooy seet man damay wax ne seet képp ku ma seetal dinaa la wax ba wax la loo yaakaar ne mbindeef mësul koo xam ci yow bu neexee yàlla ak yonentam ba rawatina nag nga bëgg seetlu ci mbir lu mel ni sëy lu mel ni tukki lu mel ni bëgg samp kër lu mel ni bëgg wut place oh. nga bëgg a xam ba xam barab bi nga nekk baax na wala baaxut mm-hmm. fi ngay dem fu baax la wala baaxul mm-hmm. ki nga bëgg a takk baax na wala baaxut te loolu lu xam importance la si dund doomu aadama bi doomu aadama bi lépp lu muy dugg mm-hmm. war na ko mën a gëstu war na ko mën a xool man sama seet ci lu leer laa lay seetal am nañ seet boo xam ne léegi ñu seetal la wax la lu baree baree baree baree baree baree am na seet boo xam ne istixaar la man damay wax ne man lu ñu yënant bi digulut man loolu duma ko laal seet ci alquran lay def seet ci kurus listixaar wax la say mbir man ci loolu laa nekk xamul leneen loo xamante ni nekk naa ci seetu ramlu bi nga xam ne siiw na sëriñ ci bëri jàpp nañ ne naan nañ ko te fekk naanuñ ko sëriñ ci bëri jàpp nañ ne xam nañ ko te fekk xamuñ ko mu nekk nag seet bu doy waar mooy seet boo xam ne bu la ne la suba di nga dee di nga dee ramlu bu ne la suba di nga faatu yàllaahu di nga faatu kon sekk seet bu wér la seet nag képp koo xamante ni jëflante nañ ci ak yow ñu wax la li nekk ci yow wax la ay tegtal nga def ko bu neexee yàllaa yonante ba nga tàqali ko jafe-jafe yooyu ak gàllankoor yi loolu daal lañ amoon lu ñuy wax ci seet ci gàttal ndax ñu bari xam nañ ñu ci alhamdulilah. acca damay ñëw ci sa nopp bi sa nopp sa nopp lan la ndax nit ñi ñu ngi koy waxtaanee sa nopp bi daam sa nopp bi yéeme na de. naa ñu del si waat seet xam nga man nopp dama bari façon yu ma doon ko defee. am na nopp boo xamante ni. am na nopp boo xamante ni si béjjinu kéwél xam nga kéwél. béjjinu kéwél si lañ koy liggéey. nopp boobu du weesu ñetti fan mënu ko weesu maanaam bis bi nga ko def 24 heures lu ñuy wax 24 heures man maa waxul 24 heures sax maanaam bis waxtu wi nga ko def waxtu woo du dellu si te fekk ki ngay noob la nga bëgg ci moom amoo ko xam nga noob dafa bëri différence noob dafa xam noob nit ki tàggat doomu aadama bi dafa xam gis nga tàggat mooy nga am exemple sa benn sa benn sa benn fas nga tàggat ko ba loo ko wax sax fas yu da koy def loolu ci xeetu tàggat la noob nag dafa wuute ak tàggat noob boo déggee noob mooy not nit ki ba nga man ko ci côté yëpp gis nga noob ci jëmmi boppam man ci bijjinu kéwél laa koy liggéey bés bi nga ko def heure bi nga ko def du weesu heure bi heure bi du weesu te fekk li nga bëgg amut noob boobu nag du caaxaan moom ma koy liggéeyloo du xaalis tamit moo ma koy liggéeyloo na leer du xaalis mais tamit nag du caaxaan moo ma koy liggéeyloo te duma ko liggéeyal koo xam ne nekkul ci sëy nob boobu du ko liggéeyal ku nekkul ci sëy ci béjjéenu kéwél laa koy liggéey mu nekk lu wér heure bu ma ko def su ma ko defee di heures balay 17 heures di ñëwaat ci heure boobu. gëñ naa ci alquran kooku mel ni dof ci yow. gis nga nopp lu bon la nopp mooy tax nit ki bu tëddee du nelaw. du lekk du naan. fekk tegul la bët du xam jàmm. tàggat nit ki nag mooy nga tàggat nit ki rek ci sa bëgg-bëgg lay woy bokkut ak noot noot nit ki ci lépp loo bëgg mu def ko dégg wax ji am nañ nag beneen noot boo xam ne dañ koy liggéey mooy noobu nen bi ñu bëri xam nañu ci mooy fas bi ànd ak nen bi xam nga tey dangeen ma bett moo tax yu bari sax wanewuma ko pour ñëpp xam ko waaye ñu képp ku ma yàgg seetaan yàgg ngaa gis noobu nen bi nga xamante ni ñu ngi ciy liggéey noob bii wallaahi laasim képp koo ko def nga jël ko suul ko fa nga war a <laughs> ah seex seex sekkere dafa am xam nga doomu aadama man dafa am lu ma gëmut ñu bàyyi xel ci nopp yi ñu continuer waxtaan yi dafa am lu am solo lu ma bëgg a wax man dafa am loo xam xamante ni gëmuma ko man gëmuma sëriñ nga ne li ma xam kenn xamut ko gëmuma sëriñ li ma yor kenn yorut ko gëmuma sëriñ li may def kenn defut ko yow xamoo dara yow defoo dara yow mënoo dara sëriñ bi dafa bañ ban ne damay ñaan yàlla waaye sëñ bi li ngay ñaan yaa ko moom looy ñaan kay moomu ko du dëgg da ñaan yàlla pour yàlla defal la li nga bëgg lii nañ ko bàyyi xel yàgg naa wax ne sëriñ du yàlla du yënant sëriñ du yàlla du yënant yàgg naa wax ne sëriñ buy toog ne man maa fi ëpp xam-xam kooku dafa bari wax di wax rek borom xam-xam yëpp dañoo wax ne nisful ilmi laa adri genn wàllu xam-xam mooy xaw ma léegi ki taxaw nekk li ma xam kenn xamut ko est-ce que kooku jotul ñu bàyyi xel si moom li ma man kenn mënu ko secret bii ma yor kenn yoru ko foo ko jëlee secret bi ma yor kenn yoru ko yow foo jëlee secret bi li ma xam kenn xamut ko yow foo ko xamee ak kan moo la ko xamal ndax yow ka la ko xamal yow rek la ko xamal kon nag ñii seetaan nañ bàyyi xel ñiy wax gis nga wax dafa neex waaye ñi koy déglu dañoo war a bàyyi xel li ñuy déglu lan la nañ bàyyi xel loolu bu baax a baax a baax a baax Cheikh noob ñaari façon am nañ ko ci ba ñetti façon bari na ndax man dama doon wax ne bi ñuy ndog nekk ndonga daara am na benn affaire boo xam ne xam nga ndonga daara dafay xaw a sob xaw a saasaay am na affaire boo xam ne buñ ko jàngaan feko fexe ñu ñu jege ko ci ci ci ginnaawu ndaw si mooy ci taatu ndaw si laal ko ci kooku dalay topp rek secret dafa xam sëriñ si nañ fexe lépp lu ñuy jox doomu aadama yi mu nekk lu wér lépp lu ñuy jëflante doomu aadama yi mu nekk lu wér. sëriñ dangay joxe lu wér toog ci lu wér xam lu wér ñu bàyyi caaxaan yi ak ñàkk fayda yi ak yëfi doyadi yi ndax sëriñ xàmmeewuñ ko foofu te xaaruñ ko ci loolu. lu am importance ngi noonu nañ ko bàyyi xel man mi kay wax maa ko njëkk a bàyyi xel ni kay déglu nañ ko bàyyi xel. wasalaamaaleykum message bi am na solo jàll na jërëjëf ak ci secret boobu nga wax sax mooy tax dinaa dugg ci beneen secret bu yéeme boo xam ne yaa ngi koy def mu di gàllaaju place bi. secret gàllaaju place bi. mooy ki nga xamante ni dafa nekk ci place xam nga seex. Mhm. damay wax toujours ne dañoo nekk jamono bu doywaar waar. émission bi dafa ma neex sama xol bi dafa fiix ni may waxee ak yow ndax dañoo nekk jamono bu doy xam nga lan mooy jamono bu doy waar. gis nga gis nga bo gis nga jamono bii ñu toll. képp ku fagaruwut mm. képp ku jogul sa bopp mm. gën naa ci darajaay Muhammad ne doo doo fi yàgg wala li ngay bëgg doo ko am Cheikh li nga bëgg how ni personnes ñoo ko bëgg fi nga bëgg a toog how many personnes ñoo fa bëgg a yegg mm. gis nga nit bu fekkee if you want to reach for your life bu fekkee da nga bëgg a da nga bëgg a bëgg a gañe sa sa dund boo bëggee gañe sa dund daam looy def gis nga ñaan yàlla loo xam importance sa adduhaa u silaaul mu'min loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax gis nga mën mënoo nekk ci barab nga ne temm rek ci barab bi am na ñoo xam ne booy dof dof lu ñu génne la ci barab bi <laughs> secret bi nag hmm. da nekk ci place ñu bëgg la fa génnee wala nga nekk ci place ñu di la xeex. Mm-hmm. wala nga nekk ci nga yor benn ñu luye la fenn bëgg boroom kër gi bëgg la génnee foofu. secret bi ci xollitu gerte laa kay liggéey juróom-ñaari xolliti gerte lay àndat ma jox la ko nga fexe def ko ca place ba. billahi wallahi watallaahi boo doon am téeméeri at dalay neex nga dem bu la neexu doo génn billahi lazi laa ilaaha illaa huwa laa la wax de bu la neexu doo génn place ba. te li may wax am na ñoo xam ne tey mën nañoo confirmer loolu secret dafa am te dafa nekk dëgg man damay ñaan toujours lépp lu may joxe na nekk lu wér secret bi képp ku ko am ñu bëgg la xeex ci place def ko ca place ba nga nekk ku la bëgg a àjj àjjee ko ba yamul xiyaam te secret bu wér la nañ bàyyi xel lool incha allah. jërëjëf sëriñ mm-hmm. Ahmed Jim Thiam jërëjëf ci xam-xam bi waaye jërëjëf ci leer lii loolu rek lañ ci bëgg kuy topp rek mën fee jërë lii di njëriñ. Euh, dama ñëw ci pot bi nga xam ne yaa ngi koy def te la dëxëñoo ci njëriñ ci biir bëri na waaye mën nañ cee jëlee lu ci mel ni impuissance sexuelle mu di néew kàttan di ngóora ak lii di yokk awra. waa xam nga xam nga seex mm-hmm. wàllu yokk awra bi tey dafa am lu mu ciy leeral moo nekk nii mm-hmm. nañ ko bàyyi xel gis nga poudre bii xam nga yokk awra bala ma bala ma koy laal sax ñu leeral ci dafa am góor ñoo xamante ni seen ndoxu mën yu baaxul seen wallax jaan bariwut te lenn rek ko waral mooy mën yu bu normalut te mën yu bu normalut ndoxum siti da ci joué lu bari est-ce que yaa ngi may dégg bu fekkee da nekk góor sa ndoxu mën yu baaxut ñu ne la danga am problème mu mën yu dafa woyof wala nga nekk góor di gaaw a daanu wala nga nekk góor euh, xam nga dafa am góor goo xam ne day gaaw a yëg boppam trop balay dara di xew mu yëg boppam nga bëgg a nekk góor tigi xam soxna man koo yore ca nanga ko war a yore gis nga gis nga gàllaaj bi sunguf bi moo nekk nii lii rek nga si jël lu toll nii nga def ci gis nga day ànd ak doomu limon mm-hmm. nga dagg ko xarit bi nga ciy nal nga jël lem bi nga sotti ci nga jël ndox bi damay leeral pour ñu ñuy seetaan xam lan la ñuy joxe lan la joxewul loo xamante ni tey képp ku ko naan da ngay xam problème gis nga boo ko defee nii nga yëngal ba mu baax da koy seggi soo paree da koy seggi nga def ci lem bi ak limon bi xamul dara lum lay def na sëriñ si bàyyi seen garab yi ñuy jël di ci def ay per ma ne déglu ma sëriñ si seen sungu yi ñuy jël di ci def per nañ ko ba man am naa ci benn kaa sama benn client boo xamante ni dafa masa naan benn poudre bi muy saw bi muy saw bi muy tuur ndox li muy tuur ndox comme genre deret ngir lan poudre bi nga xam ne dañ ko jox te dafa am dafa am genre garab boobu noonu li ñuy ménager xamatuñ ko dañuy def lu ñu neex rek te damay yox toujours ne sëriñ bi lu muy def na ko xool ndax lii dem ci biiru doomu aadama loolu dafa war a nekk loo xamante ni lu set lu leer lay doon su ko defee nga naan si gis nga da nga naan mhm. boo ci naanee trent minutes avant ngay ànd ak soxna si wallahi sa jë sa sa jabar dina xam ne gaynde moo nekk ci kawam sa jabar dina xam ne góor tiggi moo nekk ci kawam ki nga xamante ni nag awraam dafa gàtt ki nga xam ne awraam dafa gàtt wala awraam dafa nooy am na kuy jogal mais awraam dafa jogut dëgërut wowut mhm. nga bëgg awra bu wow koŋ awra bu mat sëkk awra bu dëgër awra bu rëy mhm. jëlal bii nga dikk ci diw gis nga boo koy forote sa awra di nga am awra bu dëgër di nga am awra boo xamante ni sa soxna dana bég bég goo xam ne kenn du ko mën a expliquer yow mi nga xamante ni da am problème mu awra dafa gàtt wala dafa nooy amuñ ci morom secret bi mu xamante ni dama koy joxe waat ci wàllu si wàllu néew kàttan waaw dama koy may presque mooy ki nga xam ne day faral di foye boppam lu bari gis nga góor warta tàmm téye awraam di ngabaj ngabaj yi loolu dañ ko war a baax du caa amul benn njëriñ am na loo xamante ni nag rab moo koy def àndandoo bu bon am na loo xamante ni bëgg topp sa bànneexu bakkan moo koy def góor googu moytuwul téye sa awra di ko fooyee gën ñaa ci alquran bala ngay am 30 ans wala bala ngay am 35 ans wallahi laa sim jigéen boo tiim yur rek ngay def doo ci am benn njëriñ kun fooyee sa awra lan la lay jëriñ ban plaisir moo ci ne ban mbégte moo ci ne amul benn njëriñ yow mi koy def di foye sa bopp tout le temps demal wuti soxna soo ko mënee soo ko mënoon nga jéem a jog faj lu sa bopp am na benn saafara boo xam ne képp koo xam ne da ngay foye sa awra su ma la ko joxee nga diw ko ca awra ji bu ñuy noddu timis nag nga koy diw bu ñuy noddu su timis nga koy raxasee sa awra trois jours nga bàyyi fooye sa awra trois jours nga bàyyi fooy sa awra incha allah loolu laa bëggoon a wax liñ ci mën liñ ci mën a yaatal bari na mais loolu rek lañ ciy wax pour jaamu yàlla yi nga xam ne ñu ngi ñuy suivre incha allah. jërëjëf acca ñu dox ba léegi wéy ne ànd ak kii di Serigne Ahmed Jim Thiam ci xam bi nga xam ne mu ngi koy wesaare te ku taataan rek jëlee ci lu kawe sa njort acca euh, ci ñi may jàmbat saa su nekk bëgg nañu ubbeeku seen mbir dafa tëju waaye ñi nga xam ne bëgg nañoo am bayre ndax safatuñ dara lu ñu jaay du jar kenn déggatu leen fexe leen ngeen am jaaro sëriñ Ahmed Jim Thiam jaaro bu yéeme buy dox ci ubbeekook bayre waa Cheikh jaaro bi moom yaakaar naa yow xam nga ñu xam nga ci képp ku ñuy suivre tamit yàgg nañu gis ñuy wax ci wàllu jaaro bi damay wax ne jaaro bi lim dëxëñ dafa bari Cheikh lu wér rek mu am solo Cheikh lu wér rek mu am solo gis nga jaaro bi mm-hmm. képp kuñ ko jox man sama jaaro dama ko garante sama jaaru képp ku ma ko jox li ma la wax gisoo ko woowaat ma téléphone ma delloo la sa xaalis sama jaaru ma waxaat ko mu leer képp ku ma ko jox dama garante man sama jaaru du ma yàlla bay garante du ma yënant bay garante li tax ma garante mooy dama jëflanteeg ay nit ñu gis résultat wax ñu ne ñoom kontaan nañ ci lu leen jox moo tax ma am fitu garante ko képp ku ma ko jox li ma la wax gisoo ko woowaat ma téléphone ma yónnee la sa xaalis jaaru bi ci bayra ubbeeku ci wàllu am-am yow muy uut yow mi nga xamante ni loo sumb du yegg yow mi nga xamante ni loo bëgg doo ko am yow mi nga xamante ni loo dugg mu yàqu yow mi nga xamante ni xaalis du toog ci sa loxo yow mi nga xamante ni da ngay business bëgg loo yore mu jar billaahi wallaahi tallaahi képp ku takk jaaro bi di nga yokk dinga nga ubbeeku di am xaalis te loo yor mu toog sa loxo te procès boo sumb mu yegg lii dama ci yàgg a wax ñu bëri xam nañu ci jaaro bi mu nekk lu wér. ku ma jox sama jaaru gisoo li ma la wax woowaat ma téléphone ma delloo la sa xaalis ndax garanti bi mooy ñi ma jëflante te ñu am ci résultat moo bari mm. kon nag am naa ful lay taxaw garanti ko. ndax nit booy jëflantee nit di joxe médicament ñuy faju di wér man nga taxaw nga garantu loolu kon alhamdulilah képp kuñ ci jox luñ la wax di nga ko ci teg bat bu neexee yàlla yonante bi incha allah ñu dox ba léegi wéyal jàll ci beneen ponk damay ñëw ci sa fas gi nga xam ne moom butéey bi ñoo ànd te lëmb réew mi di dox ci lan euh, am doom ñi nga xam ne dañoo sëy ba sonn yaakaar ne mënatuñoo am doom sëy nañu ati at fexe leen nga am fas bi ànd euh, butéel bi ak fas bi ñu ñëw ci butéel boobu wàllu doom bi moom yaakaar naa ne ñu bari xam nañu ci léegi xam nga wàllu doom man moom laa gën a sawar a liggéey guddi yi ñu toll li tax ma gën a bég ndax pay yàlla gi nga ciy am kenn xamu nu mu toll. imaginal seex jigéen bi nga xamante ni toog na ay at di sëy mënta am doom yàlla dimbale la nga jëflante moom mu am doom imaginal seex jigéen boo xamante ni dafa nekk ci biir kër ñu di ko bundu xatal ngir ñàkk doom. imaginer jigéen bi nga xamante ni mhm. bi mu commencé sëy ba léegi ëpp na fukki at di dem mësta dégg bébé mais nag nañ bàyyi xel jigéen ñooñu nañ xool ne ah. am na jigéen ñoo xam ne buñ juddoo ba léegi mësuñoo hmm. dégg alxayri est-ce que dégg nga ma kon jigéen yooyu nañ sant yàlla ndax ñoom dégg nañ alxayri ba di xelaat doom waaye ana ki nga xamante ni bi juddoo ba léegi mësta am jëkkër hmm. kooku est-ce que tal na xelaat doom kon nag doomu aadama bi lépp lu la yàlla jox rek na ko si na ko na ko sante yàlla waaye yàlla lépp lu mu la jox na ko góor góorlu ndax alquran yàlla daf ko wàccee pour mu jëriñ jaamu yàlla yi. dégg nga ma nekk ci sëy amoo doom dafa métti am na jigéen boo xam ne li ko toree am doom bari na xam nga tubaab moom dafa am lu mu xam moom bu seetee ba jeexal rek. fokk mu am nu mu teg fokk mu am benn programme moom la tegal naan la kisk laak nangam laak buutit bàyyi jul affaire baak moo fattak yooyu noonu fokk ñu fatt dara dégg nga ma ne secret dafa xam te lii fàttunoolu sax rab mën na koo fatt lii tax ba mënoo jël ëmb rab mën na fatt loolu tubaab du gis rab tubaab du teg bët machine du génnee rab xam-xam mooy génne rab alquran génnee rab mooy wax nit ki lan moo nekk ci moom fas gi nga xam ne maa ngi koy joxe ci wàllu am doom mu nekk nii mu nekk fas gu wér moo nekk nii seex lii li ma ci am ci résultat dafa bari seex lii li ma ci sant yàlla dafa bari du sama man-man du sama xam-xam ndax man mënuma xaw ma yàlla moo man moo xam waaye damay góor góorgóorlu pour ñaanal jaamu yàlla yi seen aajo yi faju fas gii nga takk ko nga naan saafara bii avant ngay ànd ak sëñ bi après boo ànd ak sëñ bi ba pare nga takkal ma fas bi bàyyi ko sa ndigg bi gën naa ci darajaay Muhammad ne doo génn si ñaari wett jëloo ëmb am na koo xam ne day jël ëmb. dem ba ci biir mu tuuru rab moo ko waral. am na koo xam ne buy ànd ak jëkkëram sax ndoxum mën na jëkkëram day génnaat rab moo ko waral. am na koo xamante ni tey dana dem bañ xoolal ko nekku jël nga ëmb. bu ñibbee këram buy tëdd buy gént sëy rek. mu yàqu ëmb ba yàqu ëmb ba tuuru. kon liy indi gàllankooru jigéen ñi mënta am doom dafa bari. fas gi na képp ku ko takk li ma la wax nga def ko. muy rab muy liggéey. muy ngelawu seytaane muy bët bu ay gën ñaa ci alquran ne kenn du la teree mën a jël ëmb képp ku ko takk dinga nga jël ëmb waxuma ne nag képp ku ma ko jox mas nga jël ëmb yàlla mooy séddale te joxul ñëpp yàlla mooy séddale joxul ñëpp de dégg wax ji waaye ñu ci sant yàlla ñi ciy woo dañuy wax ne gis nañ alhamdulilah du suñ man man waaye ndimbalal suñu borom la maa ngi ñaan yàlla képp koo xamante ni yaa ngi ci néegu sëy mënoo am doom yal na yàlla may la ko maa ngi ñaan yàlla képp koo xamante ni yaa ngi dund jafe-jafe ci sa néegu sëy ndax néegu sëy seex dafa comprendre nga léegi seex ci boobaa loolu dañ ko mat a bàyyi xel kon na jigéen ñi muñ te jog te seen jëkkër yi dimbale leen may leen doole seen jëkkër yi nañ leen dimbale may leen doole te comprendre leen ñu jóg faju ndax feebar boo gis mën nañ koo faj xamul feebar bu buñ mënta faj ba mu des feebaru dee kese lañ mënut a faj loolu na ko nit ñi bàyyi xel dem naa si ñëpp dem naa si ñëpp nag taxul nga jàpp ne ñëpp ñoo yem sëñ bi bu ñëpp xaw yemoon am ñu gedd seen cër wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf sëriñ Ahmed Jim Thiam waaye ameen ci ñaan yooyu nga xam ne def nga ko jëmale ko ci ñooñ nga xam ne suñu borom da leen a maye ko tuun tànk di jàpp leen lépp dina baax ndax eh, yàlla moom mbiram yaatu na aja dama ñëw ci ndomb bi nga xam ne yaa ngi koy def waaye ndomb goog ci kaaraange nga ko jëmale jamono jiñ toll nag ku aaroot ah sa bakkan nga ci xottu gerte de waa Cheikh ndomb gi damay waxaat rek ndax yàgg nañ ciy wax muy ndomb góor gi damay wax ne képp ku ko takk dama koy gàttal képp ku ko takk xataa sa waaye jur bi la jur bu jógoon pour dem ci sëriñ yàq la wallahi la azim vingt-quatre heures du ko fekk muy nooyi képp ku jóg pour yàq la faatu képp ku jóg liggéey la dutu ko ñaareel ci addunaam mu nekk ndomb gu wér damay wax ne képp koo xam ne yow nekk nga ci famille bu doy waar bu ko jël ndax boo ko jëlee sa famille jeex bala fa secret bu wér la ndomb gi ku ko takk ku ko takk ñu jog di la liggéey pour yàq la kooku moom yërëm naa ay mbindeefam loolu laay wax ci ndomb gi incha allah. ñu ngi ci at mu bees dugg nañ ci at mu bees. dafa am sunguf bu may jàllale. Cheikh dafa bari jigéen ñoo xam ne mënuñoo am jëkkër ba léegi. gis nga sunguf bi tuuti laa la ciy jox rek. nga boole ko ak fuddën. sunguf bii laa lay jox tuuti rek sunguf bi moo nekk nii. donc ñëpp bàyyi xel ma jox la ko nga boole ko ak fuddan nga fuddanoo ko <laughs> sia sia loolu dama koy nëbbu sax damaa bëgg damaa bëgg jigéen ñëpp sëy képp ku ma ko boole ak fuddan ma jox la ko nga fuddanoo ko wallaahi laasim te lu yomb nag lañ koy joxee wallaahi laasim nga dem sëyi ci lu gaaw bu fekkee dafa am koo bëgg nag woo ma wax ma ko incha allah. dugg nañ ci at mu bees mu di atu jullit ñuy ni ma koy wax saa su nekk baal na ñëpp àq di baalu àq bu baax waaye comme que réew mi daam nu muy doxetu gis nañ ni mu mel euh, at mu bees mi lan nga ci gis waaye it ñu jëmale ko wér ko ci ku langue politique yu Sénégal bi ndax ni muy doxee dafa metti jamono toll ni waa Sénégal moom the always ak lu mën a xew xamal ne Sénégal dafa nekk dëkk boo xamante ni guddi yu ñu toll Sénégal métti na ndax nit ñi lu ñuy dund dafa métti dafa doy waar wante nag ci at mii di ñëw ñu def ñaan yàlla def jàmm ci réew mi te mu nekk loo xamante ni lu ñuy jig lay doon lépp loo xamante ni na lay doon yenn buñ ko teg bët ndax gis nga at bii ñu génn nii wala at bii ñuy waaj a génn nekk na at moo xamante ni wallaay métti na ci Sénégalais si métti na trop xaw ma ni personne ñoo ci dee aw ma ni nit ñoo ci faatu métti na ah ñu ñaan yàlla yenn yàlla yemale ko fii di ñaanaat beneen mbir mooy que ki gën. nga xam ne bu ñëwee Sénégal yi dutuñ sonn ak kum mën a doon yal yàlla teg ko ci bopp réew mi nguur nag yàlla moo koy joxe ñun yàlla am na lu ñu sedd am na nuñ ciy jëflanteet ñoo xam ne ñu ngi jëflantee ak ñoom waaye duñ ci mën a sori ci wax ji ak lu mën a xew rek mooy ñun dañuy ñaan ki gën ci réew mi koo xam ne bu ñëwee ndaw ñi dutuñ sonn mag ñi dutuñ sonn lépp dina nekk tranquille ñu ñaan yàlla kooku falu nekk ci bopp réew bi ndax yàlla mooy joxe nguur wasalaamaaleykum makeek euh, partem bi APR nan nga ko gisee ak euh, ëllëgam mu ngi noonu loolu moom dama bëgg ñu def si émission Macky ak APR gaa yooyu noonu mbir mu nar a jaxasoo mu ngi noonu ndax dana bari ñu beddeeku dana bari ñoo xam ne dañuy beddeeku wante loolu munta ñàkk bu baax a baax a baax a baax a baax mais nag ki nga xam ne mooy njiitu réew mi moom ki mi programme xam na ko est-ce que dégg nga ma mais munta ñàkk féewaloo am ndax bu fekkoon dafa am ku leen jiite te kooku di dem di leen fi baax kenn ku nekk bëgg nga toog fu baax moo tax xeex bi foog mu am féewaloo bi foog mu am waaye ak lu ci mën a am rek nañ jàpp ne ku bëgg a defar Sénégal du yàq man loolu laa gis képp ku bëgg a defar doo yàq damay dégg na ndaw ñi ne parfois ñu ne réew bu baax rek xeex lañ njëkk def avant réew mi di baax mais dafa am ñu xeex jik am na ñoo xam ne xeex jigul leen Sénégal xeex jigul leen ndax ñëpp bokk ndey ak baay bu ñëpp bokkee ndey ak baay bu xeex amee bu reyante amee rey nga sa rakk du dëgg bu gaañante amee gaañ nga sa mag bu ñàkk lekk amee sa yaay lekkul dégg nga ma dara gëntu métti rek benn yëngatu am gars yi seen affaire yooyu ñuy sànni mu xesaw xesaw goo xam ne parfois nga dem ci benn koñ benn maire feebar mm-hmm. hôpital yi loolu naka nañ ko war a mën a dundee kon ñu ngi ñaan yàlla li tax ma ne xeex jigul Sénégal loolu moo tax ndax ñu ñëpp ñoo bokk ndey ak baay Sénégal rek ñu yitteel dara yitteel lu ñu lu du Sénégal ndaw Sénégal ñoo ñu yitteel dara yitteel ndaw Sénégal na yàlla def jàmm ci réew mi seex dafal leen ko yéen ñi nga xamante ni yéen a ngi dox jéego yu am yitte si dëkk ma bi su boobaa ñu bàyyi xel loolu <laughs> loo mën a laajte rek nga laajte ko ñu tontu la ci liñ ci xam incha euh, kii di président Ousmane sonk ndax euh, dina bokk ci élection yi wala du bokk. waa Ousmane Sonko dina bokk du bokk xam nga man nomihuma kenn xam-xam mooy wax xam nga nit euh, nit loo xamul bu ci wax man duma sëriñ buy ut bës utuma bës man damay dimbale ak jaamu yàlla yi utuma bës Ousmane Sonko maa ngi koy ñaanal jàmm ak wér gu yaram tawfiix fam nekk yàlla defal ko ko man bës intéressé wut ma li ma intéressé mooy Sénégal nekk. gars yi nee nañ fi mu nekk de kaso benn. fi mu nekk ak kaso. man sax boo bëggee dégg-dëgg xam Ousmane Sonko fu mu ne. xaw ma ko. vraiment dëgg-dëgg xaw ma Ousmane Sonko fu mu ne man Ousmane Sonko jorun ma li may am li may am Ousmane Sonko joxun ma ko ah. Ousmane Sonko élection 2024 bu ko yàlla naree jox yan na ko ko jox bu fekkee bu ñëwee jàmm am ci réew mi yan na jot bu fekkee bu ñëwee jàmm am ci réew mi yan na ba ko ma a jot bi jaay yenent bi. président 2024 APR lay soqeekoo ci ñi nga xam ne am nga yaakaar président dina leen tànn ci profilam wala PASTEF wala PDS. waaw man de moom boo bëggee dégg dëgg li ma jaaxal si affaire PASTEF mooy seen kàngaam yu bëri parce que dañ leen a xaw a képp ci benn côté seen kangaam yu bëri dañ leen a dañ leen a téye loolu rek daf maa xaw a jaaxal nag si waa PASTEF wante daal am na koo xamante ni. man daal teg naa ko bët lool te maa koy bàyyi xel. kooku mooy kan. loolu surprise da du ko wax. ñi ma ci lu baax ñi ma jege rek ku koy xam. waaw kon ñu bokk. kenn la daal te xam naa ne ku jege Macky Sall la. Ah. waaw. lan moo njëkk ci tur bi ak sant xam naa a daal moo si njëkk. <laughs> allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim ñu ngi ndokkee ñëpp di ñaanal yàlla ñëpp tawfiq wa salaamu aleykum wa